Euh, deux euh, euh, intégrés de taille yoo xamante ne muy Thierno Alassane Sall ak kii di Abdoul Mbaye ñu ñëw intégré lii di alliance jot na loolu tamit alliance boobu naka nga koy analyser. boobu. soo ko génn soo ko génn ci soo génn na ñeneen ko Boubacar Camara. Mhm. caaxaan yi may waxee ngi nii rek. alliance boo xam ne c'était autour de Sonko. autour autour de Benno Bokk Yaakaar autour de Macky Sall Macky Sall génn Benno Bokk Yaakaar El Hadj Diouf génn ñeneen ñëw ci Benno Bokk Yaakaar est-ce que c'est alors que tête bi c' était Sonko moom jàppale. dem na ñu jël nañ créé beneen cadre ñii lu tax ñu dof man xaw ma politicien yi lu leen daw man leen la man bëgg yéen hmm. bu ngeen di fal yéen Sénégal hmm. bu ne xool opposition bu leen xool pouvoir hmm. xool leen ki am programme ci doon leen xeexal koo xam ne jàll ngeen ko bakkanam kon l' opposition est en train de se chercher opposition du mooy ki war a taxaw remplacer pouvoir Macky Sall jógul opposition jël pouvoir ci biir Abdoulaye Wade la jógee. Mhm. fekk fa opposition de 12 ans de Tanor Dieng yàlla ko yàlla yërëm et de et de mu ñëw romb leen jërëbale leen jël pouvoir bi. et mhm. euh, eh. foofu dafa am sax lu ma ci bëgg a dolli parce que. man euh, wax nañ ko ci émission bee passé même bu fekkee même bu fekkee euh, droit de réserve bi mu am en tant que fonctionnaire. aussi ingratitude bi mu war a am envers certaines personnes pour les intérêts nationaux man loolu d'accord naa ci mais man ce que je ne comprends pas dans la démarche de Sonko mooy li ngay wax man ni ma ko analyser mooy Sonko aujourd'hui pour accéder au pouvoir il est près à faire n'importe quel racolage man loolu laa gëm xam nga lu tax fait parce que mooy li ma wax su fekkee yow da nga ñëw ne tu anti système il ne peut les serviettes et les torchons. quand même parce que li mu wax Barthélémy Diaz ak. Euh, Moussa Diop wax naa ko fii keroog li nga wax dañoo saagante à la limite. saagante ne. dañoo saagante kon bu fekkee yow da nga ñëw ne man je veux être un homme propre li Jean-Paul Sartre di wax je veux avoir les mains propres. est-ce que Sonko a les mains propres ou non man je ne sais pas mënu ma ko wax mais je sais que démarche yi muy teg. loolu ça veut ko moom il près pour mu mun a dem pouvoir mu def qu'importe quelle alliance xam nga ce qui est dangereux dans ce pays. Uh-huh. dama koy wax fii keroog ma ne leen yow yaa ma gën a xam maître Ablaye Wade. Uh-huh. Serigne Cheikh dafay wax mu ne. il faut savoir distinguer les menteurs et les informateurs. Uh-huh. Ablaye Wade am na ñoo xam ne nii bu leen doon déglu. ba tey il est au pouvoir mais c'est parce que dafa joxoon noppam ñoo xam ne nii dañ ko doon gëmloo lu bëri. moo tax peut-être mu perte le pouvoir gis nga Sonko aujourd'hui man à la des profs damay discuter ak ñoom am na ku ma ci wax barki démb na ma yow da nga bañ xale bi c'est désolant que l'on puisse déplacer le débat intellectuel sur un plan passionnel mm. je dis que sénégalais yi dañu war a xam lenn gis nga nit su nekkee ci réew ne dafa bugg a jël réew. Uh-huh. ñu commencé di fermer les yeux sur ces petites bêtises. comme Hitler nànk-nànk comme Hitler exactement. gis nga ah. dafay dem à un moment. Marine Le Pen dafay gis ni ñii nekkatuñ samay nawle samay basaal lañ parce que pouvoir moo mel noonu. non seulement il devient un dictateur mais il devient un dictateur très aveugle. moom il a intérêt à choisir ses combats et à écouter aussi certaines personnes que mu xam ni le champ politique est un champ extrêmement complexe su fekkee tu veux faire de la révolution qu'on me permet de citer Zarathustra de Nietzsche. Hmm. c'est avec de nouveaux instruments qu'on fait une nouvelle musique mais pas hmm. avec de vieux instruments. avant may dellu ci yow maître Omar Faye très rapidement par rapport ak alliance yu ñu gis ci ci opposition bi. Ah ah parce que vaccin bi d'abord OMS amul benn vaccin bu mu validé. Mhm. Ah loolu doo bëgg nit ñi xam ko d'abord c'est-à-dire que boo leen di wax ay. <laughs> awal oh, fa yeggalil temps baa ngi dem cest à il faut que ñu xam ne d'abord vaccin yi ñuy wax yëpp la guerre des laboratoires mon oncle mm-hmm. et des grandes puissances étrangères qui sont la pour des histoires d'argent parce que c'est ça waaw des grands films cest ci benn vaccin bu OMS valide mm-hmm. loolu il faut ñu wax mais dafa am lu yéeme docteur lu ma jaaxal dama seetaan France gis benn ku xamante nii ne benn waay bu takk benn fulaar mm. a chap waa LGBT gis na ko arc ah. xam nga même coupe du monde bi fañ koy defee Qatar xam nga Qatar au cœur des arabes mm-hmm. mais xam nga ne les quatre poteaux seen i drapeau lañ fay def mm-hmm. pour la coupe du monde xam nga loolu mm-hmm. mais kooku mooy def promotion vaccin bi te yox ni yow maa la wax li man ni ah bii nii. oui. Pfizer Pfizer bi. moom lañuy ñu wone muy def promotion bi ma ne attention ci vaccin bi moo tax état du Sénégal war nañ jël seen disposition OMS aussi doit être saisi parce que ñoom dañ fi nekk pour ñëpp. Mm-hmm. waruñu nangu tey ñu jouer sur la vie des gens or actuellement on est en train de jouer sur la vie des gens donc moo tax l'État est interpellé. Mais il nous revient, nous aussi, comme mon oncle l'a dit, on peut avoir 15 jours de, de, de, de repli. Nous, Sénégalais, nous avons une responsabilité. Donc, nous la situation, nous avons nous jël responsabilité au-delà même de l'État du Sénégal. D'accord. Nous avons taxaw il y a une disposition la ñuy jël pour régler le problème bi maintenant sur les histoires de coalition. ko wax nañ ko ko. fii la toog fii ñun ñu ko saagaak ku wax. Koundobin rey sa maam nijaay soo gisee lu ñuul daw yaa ne bokkatoo ci groupe parlementaire da nga ko bàyyi parce que yàgg nga dund ci ay groupe parlementaire nga xam ne amul benn njariñ nga écarté wu au nom du peuple sénégalais absolument tu ne peux pas aujourd'hui dire que il faut changer de système et vouloir maintenant créer des coalitions avec des gars au niveau du système ça n'a aucun sens te ñun aussi duñ fi nekk naan ku ñuy fal noo ñëwee baax na quand même parce que dañu tàmm di fal ay nit ah. n'importe comment c'est-à-dire ñun aussi boo gisee Sénégal parfois ñu am ay problème mooy dañuy élire des gens d'une manière aveugle sans regarder même s'il a des gens autour de sa personne mm-hmm. mais la coalition jot na c'est c'est Sonko qui l'avait créé oui xam nga ne sama moo ko créé ba pare moo ko créé ba pare dissoudre ko nag dem yoonam mm-hmm. aujourd'hui sur l'affaire même des 94 milliards biñ ko posé question sur Atlas ak Mercalès dafa daw dafa obligation de de de de de de de dissuasion mais je suis pas je suis j'ai pas une obligation de résultat. d'accord mais je vais essayer de dissuader les gens. aujourd'hui aussi avec ce qui se passe avec Barthélémy Diaz tu as vu ce qui se passe pour des histoires de détournement de deniers publics. nga ñëw di négocier. à ce que ñoom ñaar ñi juboo bañ a nekk. ay milliards un milliard pour le terrain de la a def de telle sorte que. maintenant ñu bañ a xulóoti dañ def compromis la politique c'est des compromis pas de compromission mais il faut faire des compromis il a dit moi j'ai pas de compromis à faire pour quiconque que soit aujourd'hui donc buñ la gisee nga bëgg def ay coalition dans ce sens day bizarre day te Sénégal duñu ko nangu il est disqualifié maintenant il est il y a des yoo xamante ni dañu bëgg nag yéen ñëpp ngeen liggéey si mooy li ñuy permettre woon ñuy organiser ay élections d'une manière démocratique Mm-hmm. avec un bon fichier ku nekk am sa carte d'identité lépp jaar yoon ñu war dem élection yi ak yooyu ñu amoon aussi war nañu xool au moins nañ leen koy indiwaatee si réew mi mm-hmm. parce que loolu c'est important maintenant situation timide bu amee peuple bi war a jóg sans tenir compte parce que gis nga réew mi c'est des alliances et des désalliances mm-hmm. tey war nañu mën a au moins sur des combats légitimes comme ce qui se passe actuellement avec l'histoire des des des masques yi ñuy jël di ko joxe ñu toog xool nan la ñu regroupé ñëw xeexandoo ko. d'accord te yow am nga ci rôle keneen am nga ci rôle. parce que cër bi jox mhm. bul déglu ay saaga. saaga yi détaillé. très bien mhm. yow defal li nga war def rek. dëgg la te bu ëllëgee nga xam.